leen remercier di gërëm surtout monsieur le maire mi toog hmm? je pense que su ñuy tàmbalee dara il faut ñu am li ñuy wax royukaay am ñoo xam ne ñooy wane yoon bi te monsieur le maire bokk na si je que tey problème bi ni nga ko waxee vaccin bi buñ ko nit ñi tuddee au début amoon na coow lu bari mais loo gis rek suy commencé toujours day am coow doo mënti gis donc coow bi ñu doon wax yëpp ci vaccin bi naan vaccin bi baax na baaxul dina ñëw du ñëwul je pense que tey gouvernement bi démontré na le contraire vaccin bi disponible na fi ci Sénégal soo xoolee yeneen dëkk yi ñu wër maanaam continent yeeg yëpp muy France comme ni ko monsieur le maire États-Unis ñëpp a ngi vacciné wu fu mu nekk nii problème bi mooy am vaccin problème bi du vacciné wu de problème mooy am vaccin tellement nit ñi dañ koy wër. ku nekk xeex bi am pour am vaccin si monde bi soo leen ko xamoon je pense que nit ku ñuy wax vacciné wu doo hésiter sax donc actuellement comme on a dit programme bi ni mu njëkk a commencé mooy pour personnel médical bi donc si suba ak léegi ñi ngi vacciné ñun fii si centre de santé personnel bi je pense que si suba ak léegi suma jiwmul ak major vacciné nañu soixante-dix personnes maire ñëw complété si ni kii de vaccination beneen groupe bi demain la ñuy ñëw pour vacciner wu donc actuellement on peut rassurer la population pour wax leen ni vaccin bi am fii vaccin bu baax la vaccin bu ñuy étudier vaccin bu wóor la boo xam ne amul benn effet secondaire ñun bu ñu vacciné si subaak léegi depuis huit heures ba léegi gis ñu kenn ko wax ni miir naa daanu naa xam naa dara dalum donc loo xam ne wóor na monsieur le maire a ngi nii toog vacciné na ça fait maintenant presque trente minutes gisuloo mu wax dara waxul bopp bi metti waxul dara dal na ko donc lu mu ko mënee da jël moom noonu la ko ñeneen ni mënee jëlee te gisuñu si dara benn sikk sàkk léegi dinañu mën wan vaccin bi ni mu mel dinañ leen wan boîte bi wan leen ni vaccin yi benn bu nekk va li ñuy wax boîte unitaire la du vaccin yoo xam ne dañuy jël benn bouteille piqûre si nit ñu bëri déedéet madame Issa donc madame Issa mooy majoru centre bi vaccin bi nii la mel looleen xoolee benn boite unitaire la maanaam li ñuy wax unitaire mooy benn piqûre moo nekk ci biir pour benn nit vaccin bi vaccin Sinopharm soo gisee nag chinois lañ ko bindee parce que vaccin Sinopharm Chine lay jóge ñoom ñoo ñëkk a jaay hmm? vaccin bi suñ ko ubbee normalement waruma ko ubbi mais pour wan nit ñi rek ni mu men benn flacon la benn flacon benn nit suñu paree ci flacon bi dañ koy sànni jox keneen beneen flacon donc léegi dinañ la wan flacon boo xam ne utiliser nañ ko ba pare donc bii mooy flacon bu ñu pikiir léegi suñ ko pikiiree ba pare kii bi nekk ci kaw day dañ donc bii soo paree da nga koy sànni bii kenn dootu ko utiliser ti dégg donc nit bu nekk benn flacon benn vaccin vaccin yaa ngi nii d'accord vaccin bi ñaari dose la dose la ñuy wax ci kii donc dose bu njëkk bi soo ko jëlee après da ngay toog trois semaines mooy li ñuy wax vingt et un jours au bout de vingt et un jours da nga war a ñëw jël sa deuxième dose pour être à cent disons quatre vingt pour cent de protection ba quatre vingt pour cent il vaut mieux nga jël ñaari dose vaccin ñi ngi wax ni am na yeneen vaccin yuy ñëw jeeg seegul yoo xam ne benn dose lay nekk loolu ñaan nañ yàlla mu am tamit fii si Sénégal. lu ma mën a conseiller man en tant que médecin mooy population bi ñëpp na ñëpp dem si site ministère de la santé bindu feebar bi yegg na foo xam ne du garab moo ko mën a faj essayé nañu façon garab bu nekk nit ñaa ngi dee chaque jour nit ñaa ngi feebar chaque jour vaccin bi rek moo ñi si mën a aar nit nag. je pense que kenn bañul sa bopp nit ku nekk bëgg nga sa bopp bëgg nga aar sa bopp te aar sa bopp mooy ñàkku ku ñàkkuwul nag ah li si des moom mënuñu ko yeggale waaye ku ñàkkuwul xam nañ ni garab feebar bi fu muy dem nii nekk si kanam narul neex